jigéen ñoo fa nekk te code électoral bi dafa am lenn loo xam ne daf ko may sañ-sañu mandataire yi ndax code bi nee na bu nekk man ngaa ñëw rek vérifier sa liste moroma Déthié Fall bi muy vérifier liste Benno Bokk Yaakaar bi ci la gisee ne njombe am na girawali am na ci liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar bi Aminata Touré jiite ndax respecté wul parité bi 43 bi ak 44 bi yëpp ay jigéen ñoo fa nekk 43 bi ku tudd Rokhaya Ndaw moo fa nekk 44 bi ku tudd Maymuna Njaay girawali am njiitul Pastef nee na nag conseil constitutionnel xam ne éternellement incompétent xanaa bii nag danañu compétent ñoom waa conseil constitutionnel Khalifa Ababacar moom nag ni ki démb nee na Benno Bokk Yaakaar yàlla moo ñu atte ñooma ndax nag yàlla moo aay ci póotam buura yéen kaay gi di source Ousmane moom nag nee amul lenn dara amul lenn loo xam ne mën naa sauver ñi xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar mbir mi kay jeex na c'est fini julli tubaab bàyyi bàyyi kàddu la nee na Aminata Touré na lépp moo nag lii nag mënut a muusa ka waane ba génn ci Macky Sall yéen kaay gi di enquête nee na séisme moo am ci réew mi Déthié Fall nee na nag liste benn bokk yaakaar bi dañu ko war a rejeté ci ni mu gën a gaawee journal bi de la Soleil Benoît Sambou nee na tamit am na fukk ak juróom ci ay liste yoo xam ne yeeyu askan wi ci département yi ñoom tim respecté wuñ li nga xam ne mooy parité bi waaye nag Benoît waroon nga andi nag ay preuve comme ni ko Déthié Fall defee yéen kaay gi di Libération xëy duñu xibaar ci xën mu na liste nationale bu benn bokk yaakaar bi yéen kaay Quotidien nee na tuumalante gi diggante benn bokk yaakaar ak coalition Yewwi Askan Wi mbir maa ngi mel ni tulleeg màlle mbojjum kaane yéene kay gi xëy di ñu xibaar naan ñoo en tout ambade sala mooy recours yi nga xam ne waa coalition Yewwi Askan Wi yóbbu woon ko nag ca conseil constitutionnel ak bu bugaan géytani bi tey jii la ci waa conseil constitutionnel maanaam di yëy di yàbbi yéene kay gi di wal fajri mu xëy di ñu xibaar a na ñu respecté wuñ li nga ñoom Khalifa ñoom Déthié Fall Aïda Mbodj Ousmane Sonko ñoom nag nee na ñu ndekkee Benno Bokk Yaakaar bi fi nekk waaw di mbapp mbappi di wax ndekke yoo ñoom ti ma maanaam ñoo ngi ci njombe goo xam ne musiba ma bëkkumba la yéen a kaay gi di Walf Fadjri na Ousmane Sonko niki démb mu nag da doon ki nga xam ne mooy Aminata Touré Aminata Touré mi jiite nag liste nationale Benno Bokk Yaakaar bi Sonko nee na ko tata mimi nee na nag moom moo xam lépp waaye nag bii moom mënut a so nag Macky Sall ak lu mu accéléré accéléré ba tey ci bi di Vox Populi Ousmane Sonko nee na Benno Bokk Yaakaar na compétira pas sur la list nationale Mimi ne battra pas campagne Aminata Touré moom tim nee na waa Benno Bokk Yaakaar ak seeni militant maanaam bu leen neexee xex-xex leen reetaan dana ñu battre campagne ci nii wala ci naa Aminata Touré nee na bëgg bëree bañ bëree yéen kaay gi di l'info nee na la remontada da yeewi askan we yéen kaay gi di 24 heures ñi nga xam ne nag ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi ci ay giraawaal yi ñoo ngi ci ay njombe ginnaaw Benno Bokk Yaakaar ñoom bu nu waa Samb ak Aminata Touré bi ñu defee ay giraawaal yi ëppal ay parrain ñu ne déeta waay respecté wuñ parité bi ñaari jigéen ñoo xamante ni ñoo toppalante 43 44 ay jigéen lañu kenn ki nag Rokhaya Ndaw la tudd kenn ki Maymuna Njaay liste boobee c'est fini julli tubappa yéen kaay gi dalee si ko bàyyi mbirum politique mi yóbbu ñu nag ca diwaanu Pikine mbir mu doy moo fa xew ni ki ba benn xale bu jigéen bu tudd Fatou Kiné Gaye lañ fa rey am multi service la yoroona dafa wan noonu ba toll ci benn weer lii na loola yéen kaay moo xam ne ñaaw na ba jéggi dayoo diwaanu Maroc Casablanca bi nee na benn xale bu jigéen ab sénégalaise la Fatoumata Baldé Kanté la tudd kookee nag jëkkëram moo ko rey moo ko jamate ay paaka ba ma sedd guy ci kanamu xalem yi ci kanamu doomam yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy seeq waxtaan wu yaatu ak Oumou Sy styliste mu nekk ab femme leader boo xamante ni ràññee ko na loola dundam bi yépp mu jëmale ko ci lu jëm ci wàllum culture programme culturel am yi ma ngi ci réew mi quotidien explique na absence bi nga xam ne def na ko ci chaîne bi nee na nag coronavirus bi ni mu ci doon benn point rek la rawee nag Liverpool tey jii la Manchester City di laalee ak Aston Villa waaye nag Manchester City bu jéemee nul wala ñu jéem koo gagné na ko leer na ñàkk na li nga xam ne nag mooy championnat bi ndax benn point rek la rawee Liverpool te nag Liverpool moom tim tey jii lay laale nag ak Wolverhampton Sadio maane nee na ba léegi daal yaakaar am na yéen kay gi xëy ñu xibaar naa ñu ca Angleterre ba tey diggante Tottenham ak Arsenal tey la ñuy xam diggante Tottenham ak Arsenal ñaari club yii ban moo ci dem Ligue des Champions. Société nationale d'électricité bu Sénégal.